يا همة الشيخ اغدر لنا بأس المعذر والتعطف بنثرة تاتنا بسفره سؤال كيشن لاي واو واو هل الفرق لن مو سيباري آه، ما قدر الحمد لله كلا دري واو سؤال الفرق بين الخليفة والمخلوف جيدا lan moo séparé diggante ku uutu ka ak kam uutu ka loolu mooy lan waxanil farqi ak lan moo séparé bàyyi na daa daairati li ñuy wax dawaayir yi wal hadrati ak pays lan la ñun de def nañ musaakara waaw waaye nag dañ dañ ne dawaay rek na xadraat léegi na ñu bëgg a xam luy dawaay rek ak xadraat waa lii buñ dugg si mën nañoo xam Moussa Ka bi lan Moussa Ka lu ma jëriñ maa fii fayda tant que dootu ay bi laay nit ñoo gaaw tekki seen ngemb ñëpp ne combat bi jeex na boo ko defee ñu daan la de ah arbitre bi arbitre bi waxagut ne eh, kile su léegu ne ñu koy yëngu ne rocc na jeex combat bi jeex na day léegul nga daan nga ñàkk combat bi moo ñu dal nag ñun lu bari <laughs> ñun combat bi <laughs> dañoo ah. <laughs> xaaral ma xaaral ma am ma de Ah, damaa sonal ah. trop. waaw dafa dafa am lu ci luñ ci defar luñ ci war a defar. te defaruñ ko ci. su ma koy wax damay yàq damay tàndal sama làmmiñ yi tuuti dafa am aare aare yu mu ci dugal tuuti. dégg nga dégg nga te léegi loolu laa bëgg a laaj. misri. waaw. jaar laaj laaj laajkat bi mën naa laaj ki ko tont ki ko laaj mën na tontu. dëgg la. alxilaafatu kuutaay boo ko déggee duut benn place mooy am xalifa imma benn mm-hmm. xilaafa ga dafay nekk xanisifati euh, waaw nga uutu melaw mm-hmm. boobu xalifaab melo nga ñu tuddee ko xalifaab laaxu xalifaab maanaam xalifatu xanilaay waaw waxanil ismi wala xalifaab euh, bële la ñuy wax xabdul bu la neexee waa ni ismi wala xalifa ka wutu waaw turwa ca turwa kële dafa wuutu melo ca melowa wa kii di ko wuutu tur ca turwa waa saati wala koo xam ne dafa ko wuutu saatu ca saatu boobaa moo tax loolu la loola kat xalifa yooyu ñun moom lañ mën a waxat waaye mënuñoo jot ca sifa hmm. mënuñoo jot ca tur mën nañoo jot saatu ndax kam fa wuutoo tax aaw léegi nag lii moo ñu indil problème lee tax na yàlla kenn mënu koo jot kenn mënu koo laal xam nga toog naan yàlla mooy mbaam mi yàlla mooy nangam xamuloo soo jàngoon ba xam lan mooy xalifa ak maxluuf doo waxat loolu te yàlla du xalif yàlla du maxluuf mokk kon nag dafa am ko dikk ne ko melokaanu xaj doo ko melo man xalifa bi maa koy melo ko waaye yow yàll yow kuddóos hmm. ñun la xaj melokaan melokaanu xaj mukk maa bañ ah, xalifa tur bi dikk ne ko turu hmm. tur woowu mukk man koy xaj na xas man man may may maxluuf bi kuy saaga dama saaga waaye saaga du ak cew mukk xaddu saa dëkkaloo ko jëmmi xaj ñu ni kii mooy yàlla mooy jëmmi xaj mukk mukk mukk mukk mukk hmm. man kay maa jëmu ji moo tax ni lii muy ay maxluuf lii nag maj mënu koo xam xaarif rekk ko mën a xam ban xaarif xaarif boo xam ne mutahaqiq ku am taaqux waxuma xaarif boo xamante xaarif xel xaarif boo xam ne dafa am taaqux ci lim def bi daf caa dem ba bët euh, làng yi kon nag loolu laa la bëgg a waxal kon nag ñetti xalifa nga te léegi maa ngi koy wax léegi moo tax kële rujoo ah, ilaa lay turjaoon si foofu rek rujoo nga cay defee hmm. ah kële boo ci dikkee mhm. ah anibu ila rabbikum mhm. niyaaba ngay def mhm. boo dikkee ci kële fa tuubu ila baari'ikum taw ba nga cay def moom ñetti xeeti fànnaa at laa xamante ne bu nekk bokk da nga cee da nga cee fànnaawoo boo dikkee kenn ko na mel nga koy nga moo tax naat da nekk ne man ba <laughs> naat ak man su dikkee nekk xalifa eh, sifa nekkal xalifa ab sifa su nekkee xalifa ab nekkal di xalifa ab su nekkee xalifa ab saat nekkal xalifa saat yow da noo koy nekkee da ngay dàq te nekk mu waaye fi nekkam gi yow mën na fee nekk aha panna ari moo te ficc ndax lii nit mën na ko def ci xel mu neex wala kur kur gu gudd gudd ak kur rëy kaala ñu ne tax nga xam ne du góor ga dañ foog ne max jóob yéen déedéet mooy tax tey ñun ñoo yore ci sa gaa yi fi gaa yi fi ngan di ñoo yore kur yi yore yore da yore doo bàyyi yore kaan eh, eh, kaala mm. ak trois morceaux. waaw top ko mm. ah do ñu reer xam nañ ne yow yaa di bàyyi. <laughs> ñun fii ñu agsi du pay boo xam ne dañ fay duggee bakkan képp ko xam ne yaa ngi am bakkan booy dese boo yeboo toog mm. ndax boo duggee fii doo ci jot dara. ndax pay bi dafa nekk pay ku duus. moo tax fii nag walay sa yuraal quddus bil ayni innama bi aynil hama wa sëqi wal mahqi wa dëkki ñeenti fànnaa at yi boo ko defee rek nga mën a dugg ci pays bi te kat gis nga kii nga xamante ni mooy sifa ba ak turwa ak melowa kañ wuutu du yàlla du yàlla de <laughs> ah ah waaye yàlla doo am xalifa yow itam xam nga xalifa mooy yow am nga xalifa ndax yàlla dina nangu dina nangu loolu fànnaaw ba da ngay xool rek ndax nga am yàlla am fi yàlla dina ko nangu kon noo fi nekk xalifa kon ka doon ka nekk xalifa kan la xam nga li tax ma ne la ubbil bunt yooyu bul taxaw fii nga yaakaar ne fi wax taxaw baax na ngay a ndiki da dangaa bëgg nga delluwaat ci sa fànnaaw nga ne dara am fi boo dee foofu nga xam ne kon nag ana xalifa maxluuf lu yàlla du waa laa sarika lahu yàlla mu wax mu yekk loo ko fan ahad ah, kon nag lii laa bëgg nga xam mm-hmm. eh, soo ko xamee mm-hmm. eh, amal uula xalifa mm-hmm. bu njëkk te mooy sifa fa tëja lii feeñam nga du feeñ feeñ ijaadiyun ak xam la moo tax moom xam la moo wax nga dégg ma ne ma ne wujjóot bi wujjóot bi xamam nga xam la kon buñ ne xam na mooy inna laa malaayka yu solo na xala kon ka dikkoon ne maay moo dikke ne maay kon maay ga duut maay xam fi xamal fi maay nekk la xam nga xamal ak nekk yow xamaloo fi lu fi am da ngaa nekk da nekk ji loolu mooy ijaad yi hmm. <laughs> li ma la ñu ngay fii xam na fii mooy suluk dëgg dëgg dëgg suluk laa xay bala nga mën a suubu dëgg dëgg dëgg dëgg waaye da xam ne xaq nit ñi defaguñ suluk daf fooy defee suluk xanaa balaa ngay dugg ci buntu nga xam buntu yi fu buntu yi toll fu mu buntu yi xam fu buntu yi toll ah nag moom amoon ko ijaadin la hmm. ah min ay saaka looloo tax laa farqa amul séparé bayna al xalifati wal maxluuf fiha man la faa séparé ne kii moo uutu kii nañ uutu ndaxte ah fi mu ne yaram bi ootoo roohu man ngaa séparé ne lii mooy roohu lii mooy yaram kon lu ma la wax si biir man dama la ko génn ci biir wax mu xaw a gën a jege si tuuti noonu nag moom ijaadam ba nag noonu la demee mm-hmm. kon amul séparé mm-hmm. Euh, foofu kii mooy talif kii maxluf fi xaar li am na naf sa tëjali ndax jëmm ja tëjali woo moom xayrul martabati moo jëm martaba kër ñu ne ko butoon ki ñu ne ko suur kon ndax xam na fa lu am lu fi ñaar lu fi taxaw billaay li ma man wax képp koo xamante ni ku bu ngeen bëggee moo tax bëgg naa yéen ñii am na décorté boo xam ne soxla lañ ko tuuti ngeen yokk ko ci itte bañ dugal leen ca ñu génn tuuti mu ngeen génn ci mbedd mi ngeen gën a dégg li ma wax am na lu ma leen bëgg bëgg ngeen ngeen jàll tuuti ngeen pare daan ci daan ci ubbi buntu waxtaan bu ngeen neexee ngeen gën ngeen gën ko xam ndaxte airport da ngay dañ laa dañ laa buñ la côté fu ne décoté wu du mën a dugg il faut mu am ñu décote kon nag lii mooy ijaat ah loolu tax nag kon nag naf su tëjël yi ay xoo xay lu martabat waaw wa amal xilaafatu xanil isbi kële wax naa la ko. waaw. maa ngi lay demal ci nan la ñuy def xilaafa ci tur. fala farqa amul séparé min wasin côté bële. waaw. wasaama nekk na farqoon séparé min wasin ci beneen côté oxra beneen. dëgg kii moo tax moom numéro bi dafa garaaw. waaw numéro deux. numéro un moom foo fekkee foofu moo gën a yomb waaye numéro deux. dafa compliqué. <laughs> ndaxte xamoo foo koy jaar droit nga koy jaar wala gauche nga koy jaar. <laughs> moom boo xoolee gu droite amul séparé boo xoolee gauche am na séparé cee te te te te te min wëccin mhm. ah fa min haytu annaha mhm. bu fekkee ne fa nga xam ne moom tajalil ahadiyati boo xoolee ca ba ca ismu ba mhm. ca tajalil ahadiya ba ahadiya ba falaaqa farqa amul fa séparé ndaxte ahad moo di ko di ahad ya rek dëgg la falaa farqa wa min haytu annaha tëjalil waahidiyat nag boo ko xoolee ci kone boobu nga xam ne mooy tëjali waahidiya min ha te moom haytu nisbatul farqi waaw am na nis boo xam ne nisba nisab séparé ndaxte foo déggee waahidiya mooy lenn waaw kenn kenn la lenn ñeena da ñaar dañ dikkee lenn ndax ndeyjoor ak càmmoñ du lenn fii kon nag boo ko xoolee ba mu dikkagul ñu ne ci aat bi nga xam ne ñu ñëpp aat googu ci lañ nekk tey kenn génnul sa aat googu ba fi ñuy toll bu ñuy xoolee ci foofa nañ dem seet daan daan passeport ak daan ñu génne kookaay génne waaye waaye tëjee bële tëjal doo góor du dikk tëjal droite bi mooy dikk bare rek bokkoo sa bopp bokkoo kenn bokkoo kenn bokkoo kenn kenn yépp mooy booba booba muñ fa seetee wax dëgg yàlla amul séparé fala farqa min wa min aysu annaha tajri li wahidiyati min hiya nasbatul farqi allati fiha mooy farq ba ca nekk kon nag allati fiha waaw fa sifatu fa hiya moom alxilaafatu boobaa sifa moom lañ tuddee xilaafatu dëgg la wala ism boobaa tur wa huwa almaxloof mooy kuñ wuutu ka waaw boo ko seetee ci waay diitu bu dee ci aadiya amul farqu ndax aad moo dikkee ne may aadiya suñ ne waay diya nag kon nag buñ dikkee foofu sifa di xalifa isma ismu mooy maxluuf ndaxte ismu moo gën a ah, buñ demee ca kaw ismu moo féete kaw kon nag ka ko féete suuf ci biti mooy ismu xam nga lii moo moo tax ñu ñaqade ñu ñaqade ñu ñaqade ràññi sooy xool ngay foog ne kii moo nekk di xalifa bi kii mooy maxloo waaw waaye buñ nekkee ca waayit yee nag booba sifa mooy xalifa ismu mooy maxluuf ndaxte bul fàtte ne aadiyete bële mooy turkat bu fekkee ne danañ ba dëgg la dëgg buñ demee ba xam li dëgg-dëgg gi kooka nag moom lañ wutu de ku ko wutu si fa mii waaw te si fa mii nag booba kon dañ nekk ca benn place boo xam ne ñu ngi ci seeni asalaat mu nekk maxluuf mhm. fa min haysul maxluuf boo ko seetee fa mu nekkee kuñ wutu ka waaw fala farqa amul séparé wa min haysul xaalif boo seetee ka wuutu mhm. saar dafay feeñ alfarqu dëgg la kon mën ngaa xool ne ah kon séparé hmm. am na kii ñu ne ko melo kii ñu ne ko tur waaye buñ ko seetee fële moom gisuñ fay daal lu may kenn rek lañ fi gis kon <laughs> ah kon nag ah loolu laa wax <laughs> eh, loolu muy am fala farqa wa min haysul xaalif sahara al farqu wa tajaliha <laughs> booba tëjali ba al imdaad mooy may tëb maanaam tëjali may la te jëli may mhm. ah, danañ ko jàngale si waaye ma jàngal la ko balaa ñu ci àgg mu gën a yomb mhm. xam nga sukkar ak weex weexu dafa uutu sukkar ci neex xam nga sukkar mooy neex waaye weex lañ gis kon nag xalifa bi mhm. mooy weex maxluuf ba mooy neex dañ wutu ko mooy neex léegi nag buñ dikkee nag bëgg koo def tëjëli boo xam ne tëjëli may la mooy nga jël suukar ne ko yemm ci ndox suukar jeex ca takk nga mos ne nga mos ndox ne ndox sabatu ndox saf sukar kon dañ ko may neex mom sukar mom ndox waye amu do neex li moy mooy moy ah loolu mooy ijaat ak imdaat lële mooy ijaat lii mooy imdaat billaay wallaay lii jar nag lii lii moo jar yàq nelaw dëgg la xam nga yéen ci ni nii li tax man ma dagg sama soxla yëpp pour yéen xamu leen ko sax ama xarum tabaski ama mu moo sol ak sama waa kër waaye sama yoon ah billaay wallaay talay ah. li ma la nii sama yoon ah su fekkente ni daal man lii moom mm, lii moom lii lii moom lii moo dàq lépp waay dëgg la kon mi ngi nii de wallahi wallahi yarantoon nit ñi xam àddina kon du leen soxlaal mukk bañ dem nag lii kon nag loolaa bëgg a xam kon nag laa farax fi wa tëjaliha al ijaadi ba nga xam ne ma nga tëjali pour am foo moom farquha loolu lañ tuddee farqu dëgg mooy ma nga fële moom kon loolu lañ wax wa amal xilaafatu àll bi nga xam ne baqee des na fi ay tam alfarq xam nga wax naa la yële maa ngi dem ci xilaafa nag bi nga xam ne fi a alfarq al mutlaq moom itam min hay si tey ni di ci ñaari naka ñaari naka la naka la ndek la nekkee nii ak naka la nekkee nii mooy ñaari hay si tey nii naka la nekkee fii ak naka la nekkee fii ndaxte moom saatu ba mu dafa am tappale waa droite ak waa gauche. moom nag nan la defee nii. ah kii kii ak kii kii kii. wala farqa fiha. min haysieti yi ca benn côté. am na benn farq boo xam ne moom am benn côté boo xam ne am farq. ñaar ya. ndaxte boo seetee xalifa ci bi nga xam ne amul farq. mooy boo xoolee ba mu nekkee ndaxte ba mu nekkee xalifa moom ah ba mu nekkee ci saatu xalifa ci aadiya waaw foofa amul farq mhm. yi ma la waxal nii tey mhm. c'est la première fois ñu doog a génn fii tey fala farq fiha mhm. min ay seeti ca côté ma nga xam ne moom waaw amal ah, xay si yetaani ñaari ñaari xay si ñaari ñaari xay naka la fa nisbatu sifati minha mm-hmm. boo xoolee ca nisbaab sifa ci saatu mm-hmm. wa nisbatu ismi ak nisbaab turwa ay den ba tey mm-hmm. boo xoolee nisba sifa ci saatu ak nisba sifa ismi ci saatu ah, ay den minha waaw wa ama nisbatul ah, mujarradati beneen nisba xam ne moom tajrid la waaw ndaxte am moom am na beneen quatrième boo xam ne ma ngi ko xam nga saat dafa am benn nisba tëjëriya tëjëri waaw nis ba nga xamante ni mooy ba nga xam ne mu ah, al mujarradatu daf ca rafle woo waraa asifaat wala am na beneen nit boo xam ne ma ngi ca gannaaw melo waaw ab tur waaw wala lay xalfal ismi wala wasi mutasaayir bu nekk ca gannaaw ñaar yooya mm-hmm. boobu waxuma ko mm-hmm. maa nga laay wax da nisba ba nga xam ne mooy nisba farq ba mm-hmm. ak nisba sifa ba mm-hmm. ak nisba isu ba mm-hmm. waaye nisba bi nga xam ne mooy tajrid ba maa ngi ko bàyyi foofu ah nga nekk moom waraa sifati wal ismu fa hiya moom boobale xaynul maxloof moo jëmmi ka ñëwtu ka ndaxte fardaaniya boobale maqaama fardaaniya moo di ne ini jaayu fi addi kon nag moom fardaanee ba mu mooy maxluuf bi aadama di tëddee xalifa bi leer na nañ <laughs> wala farqa fi ah kon nag fiiha wa amal waxal naa jeexal naa ca jeexal naa la ca waaw waaye dégg nga wax ja <laughs> dégg ndax ca moom mm-hmm. boo dikkee ca nisba sifa ba mm-hmm. danga koy delloo na sifa mel mu meloon noonu kese boo ko dikkee ca nit fa ifu ba nga delloo ko ne ifu mer kese soo dikkee ramaas leen ñu daje mu wàcc ca fardaan ya di jëmi saatu bi nag ah ah, ah? dégg ko de <laughs> loolu <laughs> kon nag mu noonu mm-hmm. waxal naa la kon nag li nga ma doon laaj ma demale ci lu gàtt ci xadratu ab daayira waa amal xadratu loolu ñu naan pay pay ba pay ba man de xam ma gars yi ma naan pay ba ma gën a jaaxal ci pay gars pay ba pay bi yàlla ba pay bi yàlla man yàlla sax moom yàlla te yàlla amul moom laaxu moom xadratul xutti kan dama wi si waa xadratul la ñu wax waaye pay ñoo ko ñeen wax waaw amul di yàlla fi kër xam nga léegi boo ko defee rek kon nga ne yàlla ak këram nga te kër boo amee sa xel dañ tabax ku ko tabax ak yooyu kon yàlla lu wéet foofa di dëgg la kenn du ko wax kon dafa am ko moom pays mooy hadratul kursi xam koo xamante ni mooy def tournée fa muy déparé naan un deux trois quatre foofu mooy daaira ba dëgg la kon nag alxadratu wa daairatu mhm. fa kilaaxuma ku mu doom ci ñoom ñaar mm-hmm. yu abaru dañ ko firi anu biir uxraa morom ma xam nga lu tax mm-hmm. xaajaratu ba mu nekkee de ci xaaxut ba mm-hmm. mooy xaaxoot mooy laaxoot mooy jabaroot mooy malakoot buñ xoolee nam nekkee dajale ka ñu ne ko piey ba buñ xoolee na mooy doxee ca ba dem ñu ne ko tourné kat waaw moom mooy daw ne may xaawut may laawul may jabar muy melakut soo xoolee ca daw daw ya nga ne ko tourné kat bi soo ko xoolee ndam ndar képpee ñëpp nga ne ko xadra bi ah fa kilahuma yobarhanu bil aqr waaye nag wa daairatu tourné nag bu moo gën a jege lil maxtuus ci wax xam ne kuñ jagale xend fi man nag fi man misri yi waaw moo gën a jege ci maxsuus <coughs> ndaxte mooy ki xam nga gan gu gu la gën gan gu la <coughs> gan si gan gooy dégg ak di la gan si <coughs> mooy ki nga déggoon ci xaaw tey mu ngi nii mooy que nag laaxut ka nga déggoon ca laaxut mooy nii mi ngi ci jabaroot ka nga déggoon ci jabaroot mi ngi nii tey ci malakoot ka nga déggoon ci kol ka nag kii ah moo gën a nekk nag maxsuus xend yi fi man nag fa naqoolu dañ wax ne alxadaraatu pey ya xam sun juróom lañ wala naqoolu waaye duñ wax ne adawaa iru tourné xam ndax ga ñañuy gane ña mën naa bëri waaye genn gan mooy gane ji nag kon dañ wax ne gan dañ wax ne nag ah dalukaay gan ñi waaye dalukaay gan gi moom gan gi moom mooy dal ci dal yi rek kon mën nañoo créer groupe. ndeysaan waaye nag kenn du ko tuddee kii moom groupe waa léegi nag lii nag lii nag lii nag képp koo xam ne jaaru fii mën naa sotti lii. mooy li ma leen wax nii. xam nga nit ñi buñ demul ba dàq xaqaay xi duñ dem. dëgg la. xaqaay xi mhm. da ko fi dàq. <laughs> mbaa doo dem. xanaa dara amul de nga dikk ñu naan ñu ne yónente nga ne ñu ne xam nga moo ne Ahmad nekk kilaaf. ah yow de waxagoo ci yàlla dara moom. waaw moom duñ fi da duñ ñu ne kon masaayir masaayir ay masaayir fu mu fi daal caar fii du fi am de. boo bëgg a dugg boo bëgg a su suñu suñu suñu boo dëgg bëgg a dikk fii mm-hmm. bul fi indaale ay masaayir ak mutasaayir mm-hmm. ca biti waaw xam nga masaayir mutasaayir kenn du ci yàlla ñu ne asalaat yàlla ak asal waaye yow tam bu ñu fontoo saatu sa yàlla xàqoog saatu mukk saatu kenn saatu kenn mooy saatu waaye yàlla kenn du ko saatu mukk abadaat mukk moo tax yii yëpp ay sëyru ay jaareekaay la ay jaareekaay yooyu jaar dafa xam haa haa waaye nag àgg ko de waaw loolu mooy moo tax ñu ne Ah, wa in xale yowman fan masiru baidum gis nga yow ma bële bu ci dikkee yow mi bëgg a dikk ba fekk ci yowm bi da nga dox ba bëgg a dee nga dikk ne xool yi ne nga ne dara hey hey déedéet déedéet ba nga dàq na nga saayir ba saayir jeex tàkk nga ne jeexal naa ñu ne ah, ah ibrahima nag ba mu dàqee tojee xiram ya waka saalika nari ibrahima la ko sa war at li yàkkoon na mel ndax fii fépp dara amu fi luuru boo taxaw fi ne dara am lu may laaxu yaa ngi ci dansé ah yi ah may xool ni nag nu mu fee nekkee ak man ak moom di nga fii la la seytaane nekkee ne waaye lu fi nekk kenn fi nekk waaye nga nekk fii nag taxaw fi nag dee ila ilallah de xamuloo foo jëm su ko fee nag nga nekk foofu nag fa la lay kuppa ndax fii mooy fii fii yàgg iblis yéen a bokk benn naan waay yena a bokk de ndor ci restaurant yeeg añakaay seetal kullan numidu haula wa haula min hatay fii mooy hataw rabbi ñom ñepp fi lañu jëlé serviteur li buma len ko ay wa ma kana kama nu ko ay iblis kay lek da nga bëgg kay lek sama sama jam nga ndax may seen jatt gi ñepp ak lu ngeen bon bon man sama surga lu bon bon dama ko jox mu lek ah su ko defé nit yàlla yi moom ah iblis ñu ko kay lek yow ñu ne bu lek ah saay saay bi ngay jox mu lekk bàyyi. man la neex xalal maa moom su ma yëg. yow bu dee fekkee ne man ngay jàmm. nga ne ko waaw naa man naa xiif ba dee. man loolu la neex na neex na ma fii la ah rawee. fii la ja fii la man loo ma def neex na ma. man xiifal ma maral ma weeru yàlla bu ko lekkati. Uh-huh. iblis ngay lekk de xam nga lay wax ne koor dañuy tëj eh, sayta kii la demal ci bistroo yi demal Europe ndax yooyu koor ndax tey ñu bi royal kon na kon na waaw li ñu wax ne kon ne ci la ku jige tëj euh, saytane xew kenn yow ko bu fekkee fi yow mi ya nek ci weer wi ngay tëjee sa saytane ko wor kenn tëj sa kenn ko sa saytane man dama bañ ñuy fenloo addis <laughs> ak euh, fiq fuqaaw yi dañ ko deggul mm-hmm. ah kon khalifatu ah al khalifatu mm-hmm. mu door a ñëw xam nga mooy daf la waxoon daf la am lu waxoon ci suuf ku ne mooy ki nga xam ne al mujaradata waaw googu waaja laaju doon ko ko waaye nag el moom gannaaw moom bokk na ci mën a jàngale sa elaw lum accès gut nga accès ko ci nag xam nga dafa am na xalifa ko xam ne mujarad la waaye xalifa ak maxluuf ba waxu doon ci dara moom moom la laajoon waaye nag dafa am na boo xam ne al mujaradata mooy alxalifatu ak mutlaqata koo moom masharul xaqiqati arrabiat waaw feeñeekaayu euh, numéro 4 waaw numéro 4 mooy xalifatul mutlaqata mooy feeñekaayu xaqiqatu rabiha mm-hmm. te boobu kenn mësu ci wax ci kaw suuf lii mm-hmm. kenn mësu ko waxtaan ak xaraabee bi moo tax maa de yàlla maa de yonent maa yi seeti sextiya ndaw lu jaaxal ko yel max jóob waaw ndaxte ñoom loolu rek lañ xamoon di waaye ak xaraabee bii amul ku ci ma sax lu gannaaw lu mu lu ma ñenn ci këram bàyyi tuuti ñu tuuti benn ñaar wala ñett waaye nag foofu moom dañ koo rënkoon nag misiri moom rënki woon na ko rek denc ah ñun nag ñu waroon digg nag xayaaturu moo suñ kulaa wa isaata ndu fasur maama salikal xaru bu seen nga waroon ko nga ne man kay fii doy na ma ñu ne yow xaasil ci biir xam nga baadoor bu dikkee voilà bu dee boo dee nakatee kaw kaw boo ne boo xamante ni ah, ah nappi bu nooy bi bu xasee foo ne moom day day lal tudd fa fekk <laughs> nag ko dee leen fokk dama gën a nekk fii ah, loolu moo ñu dal nag gis nga pays bi mm-hmm. képp koo xam ne xamuloo fëtu yaay kaw kaw képp koo xam ne yaay ko yaay xam fëtu yow yow yaay yaay yow yaay nit teeru ndaxte xaadaratu mooy firi teeru ku teerul ci ku teewul ci teer bi ndax nitu teeru nga ngoog nag kon nag dikkal ndakaaru nekkal ci digg kaw kaw nekkal ci digg ndakaaru kaw kaw nga nekkal ci digg àll ba yaay nit teeru maa la ko wax de <laughs> maa la ko de kon nag moo tax gis nga gis nga li ma lay wax nii xaqiqatu rabiha bi dafa naqare wax jàngal naa la démb wala tey jii am na koo jàng xalifa bu tóon ba waaw xaq ba moo nekk di xalifaam ba mu mm-hmm. xalifaab suur mm-hmm. mooy jaamu laaw bañ dikkee xalifa xalifat laay ngeen ko muhammadu rasulullah Babacar mooy xalifa wilaaya ba xalifa rasul moo nekk de xalifaam léegi nag mu def kenn koo xam ne waxuñ ci xalifaam mu ne fa in muttu <laughs> fa laahu wal baaqi fa laa baaqi ilaa amul ku feetes lu may laaw <laughs> fa laaw xalifa si laaw mooy sama xalifa waaw moom kuy xalifaam kon léegi ah moo ko wax de laaw mooy sama xalifa de wa Aliou Cissé mm-hmm. yaraa mooy sàmm iyaal yi sàmm ah <laughs> ah waaw <laughs> lii nag xalifa bii nag laa wax lañ xamul mo mooy mot la xatar ba nga xamante ne mooy raabi abi man ndax lii neex naa wax ma lax ndax lii neex naa gëm ci caaxaan rek lii kuy fox mën na ci dugg si lii ku bëgg ba kanam dara mën na ci dugg si lii ku bëggul dara dara dara lu may kenn ki rek maa batu maa batu Cheikh alxadmi atijaan yi moom rek moo nga mën a am waaye boo bëggee sama sëriñ malikum oustaz Guèye man sama saytu mura bi ñun dañu saytu mura bi rey nañu bañ dee wét ba kenn du dem fenn te kat bàyyi ci boppam ne la man ci sama bopp sax xamal ni xamal ne laa darahum tanaafusun bil faani is kunuma yaraw na hinan a yi nga foog ne mooy bu leen uh, aj àddina déedéet mooy faan yi yow yaa ngi doon xaccoo Muhammad haay waay si yonent yàlla Muhammad taaram beeg nangam nangam mu nelaw Omar ne ko koo xamal dagg sa bopp Babacar n fekk moom jàggi na ko yàgg mu ne kon man kaana yawmu Muhammad fa inna Muhammad xat maata woon kaana yawmu daa fa inna laa xayun laa yematu yàlla man laa topp man man xaccoo moom faan yi ko doon xaccoo loolu mooy faan boo fi toogoon di nekk ne Mouhamad lu ma jox dama naa ko da nga da nga da nga lekk. mu dikk ne maa yi wilaaya bi nekk wilaaya gu rëy ga ba am ci juróom-ñett fukki yàlla. ah léegi nag nga toog na ah man kay faas rek. man kay borom faas rek borom faas lu mu la mën a jox. te ka seet yàlla nee na wali waliyu wu dee du la jëriñ waliyu wu dund moo lay jëriñ. ah moo lay jëriñ de. président boo xam ne dee na wala folleeku na nga dikkee ne man président signature am moom moom laa soxla. Ah. yow de société doo amati benn société bu ubbeeku ci kaw suuf. ndax ça foog ko lay signé. loolu la nit ñi gëmuñ dañ foo ne mag ñi mag ñi mag ña. mag ñaa baax gone kenn baaxul waaye billaahi wallaahi taala yi laa ko buñ dikkoon tey ñu jàngal leen loo xam ne mosuñ koo xam ci la paasoon billaahi laa ko ñu ngi nii lu leer nañ laa la wax mooy li am bi ah kon nag kooku mooy masarul xalib xaqiqati arabi at allati bi xam ne hiya moom xaalamul malakoo di nga ko de moom xaqiqa ba mooy xaalamul malakoo te nag kenn da de ñu ne ko hiya waaye dañ seet huwa fa huwa huwa wa hiya boo caaq kaba mooy hiya boo déggee minhaj huwa mooy indiqué ci martaba bi koo tax moo tax rek ñoom ñëpp xaa mooy xaa ah huwa mooy yaa waaw mooy waaw yaa mooy yaa nag waaw kon nag soo jëlee xaa eh, piri ko ci waaw yiw xaa nga am dix waaye soo jëlee waaw piri ko ci yaa nga xam wayu noonu lay xool de dëgg la bàyyil dama la xamal tigil yi tigil yi dafa doy waar soo xamee ni koy defee fa wax ayun wax xay nu xaay xaq xay nu xaay mooy xëy na xaaga lu xëy na xaa xëy na xaa da ngay jël xaa multiplier ko ci muy dix muy cinq par cinq sa saay du sa da ngay yëg-yëgi juróom du juróom biti nga yëg yëgi juróom muy biir muy muy muy muy juróom ci biir soo ko boolantee du may doon du fukk ah soo deful lii nag ah xanaa wacc fa xaaya dem de ñël maa nga jël waaw ak yaa nga ñibbi fa rek fagaay ñibbi kon nag seetal borom mbay kat ci benn fii lañ benn ndab lañ jëlee mbay mbay gi woyu fu mu jëlee woyu ci xuwaa xuwaag xiya fu wólu yu jëlee wólu yu ci xaak xaa mi ngi nii bilaay li ñu bilaay li bëgg a wax li ñu bëgg a wax li dafa naqaree wax ba ba jeex fu ñu ko waxee fu ko waxee wax garab bi ñëwee bu dee de ay biraat naa gaaw naa gaaw ndax nga jeexal sa lettre bi bopp dégg nga de ah. kon nag laysat daairatan qutbaaniyatan déedéet foofu kenn du ko tuddee qutbaaniya wal qutbaaniyatu qutbaani daairata xadratu naasuut fa lay dëkk maa la ko wax ah ak ah, naasuut wax na dëgg moo ta buñ ne bàyyi xalifa la naar yi ne hee hee bàyyi leen bàyyi li barahama xutbu ñu ne barahama xutbu la ma ne leen innama xalifatu fal aftaabu tahta iyalati moom xut moom xalifa la xutbu yi ñu ci ron kiliftaanam ñu ne ah wa in qalil xutbul aftaabu ñu ne ah bàyyi mooy xutbu xutbu yi ma ne hee hee yéen yéen a ngi gën a yokk xay di <laughs> dégg moom ma walakin huwa li saati ahsama masarin kii feeñee ay saatu bi gën a feeñ ponk ci fo ponkale ci feeñee ko ay saatu mooy seen wa mooy kii man naarum bi yar ilaa li saati boo bëggee sooro bi nga xam ne boo xam ne sooro jëm yàlla fu mu toll fii la waaw so soror baa ngi nii soror jumaa jaa nii du jumaa duñ ca julee de soror mooy wane jàpp jumaa waaye kenn kon nag fa da daay ta xutbaani fal xutbaani xul daa'iratuhaa hadratu Nasor wahiya moom booba nag waahidatu dawaa'iri lati qabla xaanak xaanak nag moom bii moom daayira qurbaaniya mooy unité bi nga xam ne fa lañ unicité mboolem daayira ko wér nekkoon doon dox yëfam ba dikk ci ruuxu muy dox yëfam mu dikk ci xel muy dox yëfam mu dikk ci xol bañ dikkee ci nit anañu kon nag moo dikk def leen unicité nii tey ñoom ñëpp di nekk benn mooy seen waay déetu loolu mooy waay déetu ah mooy moo tax ñi nag kii nag ci la gravité nekkee si nag kii nii mooy sóora ba nag soora boo nga xam ne tabqaatu sa kuran mooy fa sooratu Ibrahima tabqa kon nag Ibrahima wax na la fi ne Ibrahima ci turi xal ah, turi xol la bokk kon nag wayya waaye def daa irat la ci qablaha wa saayibaha borom daayira boobale huwa kooku al qutbul mutlaqa te kooku mooy kan niti waxuma doomu aadama de nit nit ana nit nit du yàpp du róow Cheikh Tidiane nit du yàpp du róow waaye yàpp róow bu ndajee la nga xamante ni moom moo fay yëngatu yore problème yi kooku mooy nit moo tax gis nga bëccëg du bés bés guddi du bés waaye bés mooy buñ dajee ñoom ñaar loolu mooy nit loolu nag ku ko mën a gis nan laa ko gën a gisee noonu la nit tëyee gisee moo tax nag balaa ngay xam kële da xam kii te kii mën na koo xam tànk xamoo kële moo tax ñu am problème bàyyi ne dëgg-dëgg xam nit mu dëgg-dëgg xam yàlla ay dëgg-dëgg réer nit mu dëgg dëgg-dëgg yàlla waxam dëgg de yi nga rek seetal gis nga koo kanam dikk taxawaay bi seetal lii moo lay jàngal saatu saati ja ak saatu aliyet bim dawee ñeenti daw daw ba dikk ci cinquième bi mooy saatu aliyet moo tax jëmm ji taxaw taxawaaye taxawaay juróom juróom ah, ba mu dikkee nag fu saatu ma sa jaar lam fa taxawee rek daf ko dikk taxawee juróom kasaalika nay lil xamsa lil ak afsun li xamsin bi xamsin nee ma xasal ak te dafa kii moo baax ni ko formé. ak a jëkk ah waay yii tam bul ma indil coow <laughs> ko ma indil coow <laughs> kon nag mi ngi nii kii kon ah moo ko nekk rek ah, mooy xutbul mutlaq wal axtaabu xutb yi te mooy fonctionnaire yi kii lañ nommé muy doxal nguur gi ci palais bi palais naasut bi moo tax mooy palais Kisra bakkan mooy Kisra boo seetee nit ma nga dëkkee ca bakkan bakkan moomu nag mooy palais mooy pale Kisra bi léegi ah moo tax moom la bàyyi mujj indi ci téere bi ñu bëgg a def ak Kisra ano sirwan jaa Muhammadun ñëw na de ah boo demee ba dégg foofu mm-hmm. da nga xam ne beneen seyru xel bi fi dafa dox ba ak sa foofu mm-hmm. kon nag kooku ñoom ñëpp mm-hmm. ah wa in na wa in sabaqoohu kulan tantoo waaw dañu kulan tantoo mu ne wa in sabaqoohu même dañ koo jiite moom mii ak lu ko fi kaay njëkk njëkk waaw mi ngi mel ni président bu doon dikki rek ndax yi jiitu ko rek pour defaral ko foofu daa wàcc ah waaye nañ xam ne patron baa ngi doog a xëy de wax dëgg de ka fol di fol yónni tul jëmam jëfi teew kantoog borom ca gën gëm leen kon nag wal faraqu teqalee bay digganteem wa bay na ba nekk na nekk na seen diggante bayi lu biir la la leen séparé leer na wa in kaana même nekkee al axtaabu kulan ñoom ñëpp ñu ngi dëkk fi Hadrat Nassour ci pale bi ñoom ñëpp ñoo bokk pale bi nga xam ne mooy palais Nassour waaye président nag du morom du morom ñi nga xam xam ne ñooy nekk ay secrétaire ak ay nekk du seen morom de ñëpp ay ay fonctionnaire lañ nag kon nag ñoom ñëpp dañu fi ne foo moom markasuha mooy santaraalu xutbu moo tax ñu tudd ko xutbaani yëtu mooy présidence président moo fa nekk ak ak dagam du moroomi dag ya nag waaye nag présidence nag moom mooy seen central nag a wamasaru kat mi yëti ha mooy feeñeekaayu ka xam ne fañ nëbbee ka nëbbu nga xam ne kenn du ko gis moom nañ naa kaa gise yàlla ah kooku feeñeekaay la dafay nekk rek boo ñu bëggee fu muy fu muy feeñee mooy masaru kat mi wal xutbu xutbu ba nekk nag fi daairatil xatmiyati ci ëttëb xatmiya koo moom masaru xatmiyatiha mooy feeñukaayu xatmiyatu ba xatmu ak xatmiyatu ba bi maanaa administrateur bi ak administration bi administration bi ka fa nekk administrateur mooy moo feeñal ne fii la doxalee ak préfet gi fii la doxalee direction présidence loolu lañ tuddee mastar bi moo tax mu ne alxutb fi daari xadmiti huwa moom mastariyatu mastaru xadmita ay xadmiyatul xadmiyati lañ ko tuddee kon mooy xadmoo xadmu bi wama sama mosul um foonul raihatul xaqiqati ban ba nga xam ne mooy ban xaq arabiat rek foonu ko alimuy for for for moom kii xaqatu rabia xiñam ga dal ko moo tax wama xattanoo fi sarqi wal xat bi fat fat ilaa makal ilaa la si sami wama xattanoo dagun fi sarqi ca ak ci abat ilaa makal ilaa li sami saa yi man lim man tu rek xàq trabia moo wax wax jooju xàq trabia ñii tourné ci daayiratu nubuwa ak de seeti fañ ba bëgg a dee waaye sama xëñ ba sax xëñu leen ñoom gars yi illaa li sami saa saa yi nag moom nag sax Ah, raayatul xaqatu arabati fa aara rawatina sax nag tanasulaha fa mu wàcc bu ko xel xalaat waka saalika nako noonu maa qablaha la ko njëkkoon fonuñ ko kama qultu naka ma waxee fi haasi ci lii maa sama foon raihatal ahmadiyati wa ma waraaha xeñu ahmadiya fóonuñ ko ak la nekk ca gannaawam mm-hmm. man de maa wax loolu mm-hmm. fan mooy ahmadiyatu ahmad ba nag mooy foofa la ca war nag waxuma ko xultu mm-hmm. wax naa nag ne alxadratu xadrat yi xam suñ juróom la xaaxootun mooy xuwaak xuwa ga wallaaxootun ak laaxoot mooy fa di dawalee Eh, arwaax ya ruuxu ga wa jabaroot ak jabaroot mooy fara bëgg da dawaleeru boobu yàmba wa malakoot ak malakoot mooy fa buur ba dawalee nguuram ga war naa ak naasoot mooy pale bi nga xam mooy diiwaanu ah, pale bi nag wa aaxiriyatan wa saahiriyatan wa baatinatu wala boog awaliyatun la waaw moo dikk de awalu mm-hmm. ah moom mii mm-hmm. moom xaaxoon mm-hmm. te xuwa moo dikk ne may awalu ah, kon ndax keneen ku nekk xun moom wa aaxiriyatu xam naa aaxiriya moom moo dikk ne may aaxiru kon nag moom aaxiriyatu ba moom xaaxoon ba de wa saayidatu moo dikk de am na saayida mu wan maa ne maay biti maay biti biti biti biti mhm. biti ndax mën naa nekk ci biir woo mhm. baat xam ne biir moom moo dikk ne maay biir ndax mën ngaa dugg ci biir mhm. wal mawsuuf ak ka nga xam ne moom lañ melale bi ilm di xam-xam xam na koo xam ne moom lañ melalee xam-xam waxoo bi kulli shay kooku ñu melalee alim nag moo leen dikk cinq nekk leen juróom ah araman xalaman xuraan xalaqal insaan xalam xool insaan nag moom laa xama koy insaan <laughs> <laughs> xam nga lii gis nga buñ ko réewu doon dañuy dee rek fii fii dañu waroon dee dee ñu benn yoon rek waaye dafa duñ ko def ah yàlla ko ci ñun dee dafa ko bàqaanal ndax mu am jaam boo xam ne koy weer ndax bu dee te du ko weer fii équipe bi kat équipe bi baax de kon nag ah, almos bi foo moom alxut mooy xut ka nga xam ko tuddee moo tax nag kii nag nga dégg ne bàyyi ne wala abdu ya ay ayna li xelmi ndax ba mu dikkee ci péyu xaamis bi bàyyi ko ca numéro 4 ga la di ko dajeeg xam-xam ci wa jaawul isnu bi ay te li ma gën a jaaxal nag xay nu xel mi bii kat mooy xay nu wulóom bi nga xam ne mooy xay nil ma aarif ka nga doon xam ca xaarif yi ne nga xam ne balaa nga xam benn xaarif moom nga a xam ba nga xamante mooy wuruusul aqaid nga xam ne benn xàq balaa nga xam moom nga jëkk xam moo nit ki fi di xay nu kat balaa ngay xam nga xam de ndax man ngaa gis lu saayiru alamaan saayiru fa lay si fokk moom daa bëgg a wax de ba leen ma indi beneen beneen waay rek bëgguma man beneen keneen laa bëggu dégg <laughs> dégg nga mm-hmm. kooku nag <clears throat> moom nag xoo alxutbu mm-hmm. wala huwa mm-hmm. nekkoon moom nag moom huwa ba mu nekki huwa ci ula ka saani mel na huwa ba nekki ci ñaareel ah, ah. wala huwa nekkoon mu huwa fi saaniyatul liggéey huwa huwa huwa ñaareel ka saalis di bokk huwa ba nekkoon si saalis te moom huwa rek la kat dëgg la ah huwa ba nekkoon ci bëri trois bi bokk na huwa bi nekk ci quatre bu nekk huwa fa nekk te huwa yi benn bokk na huwa muy huwa mooy huwa mooy huwa mooy huwa moo tax foofu huwa huwa huwa yooyu nit ñi buñ ko waxee ne muy arab yoo xam dafa neex waaye nag loolu fa nga yem rek waaye luy huwa yi huwa ah fa xaalaa xaasaa ci lii nag tafaawati rawante al axtaabu xutb yi xutb ba nekk ci numéro un ak xutb ba nekk ci numéro deux ak xutb ba nekk ci quatre dañu ëppante ay dëkkan biasa bi taa fil xaqaayiqi kem rawante xaqaayiqi noon noonu lay rawante ñoom xutb axtaab yi asalaamaaleykum ah, wa rahmatullahi <laughs> wa barakaatu ay yàlla yàlla jéggal ñu waay amiin waay yàlla yàlla